rapidement bala président di ngay wax askanu Sénégal. national bi rek doy comme il est de tradition dans notre République nous ouvrons toujours nos travaux par des séances de bénédiction des prières je voudrais inviter monsieur l'imam Omar et à sa suite monsieur Tine président du conseil du Laïka est le représentant de l'Église protestante pour formuler des prières en harmonie et à l'unisson pour une bénédiction pour cette rencontre placée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Monsieur Macky Imam kaddu wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin suma salaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di nuyu monsieur le président de la république ak ñi fi déplacé ñëw ñëpp di leen ñaanal yàlla tànk yi ñu fi jox si yàlla na ko yàlla def faru bàkkaar ak fajub aajo di ñaan ñaan yi ñuy ñaan muy ñaanu jàmm yàlla ñu ko yàlla defal ci réew mi ndax soxla nañu ko yàlla suturaal ñu la ñu jàmmal ñu ñu jàng fatiha salaatul fatihi def ko hadiyatu rasulullahi ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu suñu yéene ci réew mi te ñu duboo ci jàmm incha allah auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala ddaalliin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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa allah alhamdulillahi rabbil alamin yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla yàlla yokk suñu jàmm yàlla yàlla sàmm ñu sàmm suñu réew aar suñu yeew yàlla suturaal ñu barkeleel ñu nangul ñu bu ñu fi ñëw ci bismillahi rahman rahim yàlla ñu ñibbi ak alhamdulillahi rabbil alamin te ñu juboo yàlla defar xol yi defal xel yi yàlla ñu yàlla defal jàmm ci xel yi yàlla ñu yàlla defal jàmm ci xalaat yi yàlla ñu yàlla defal jàmm ci xol yi yàlla ñu yàlla defal jàmm ci njaboot gi yàlla ñu yàlla defal jàmm ci réew mi yàlla jàmm sax incha allah salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf imam je voudrais à inviter monsieur Tine au micro pour la bénédiction de notre rencontre. Abbé, le micro est à vous. Bonsoir à tous, Excellences, Monsieur le Président. Au nom de l'archevêque de Dakar et de toute l'Église du Sénégal, nous vous saluons en ce mois, en ce temps béni du carême catholique, voulons porter à Dieu toutes nos intentions en ce moment où la République du Sénégal est en train de vivre des moments importants pour sa stabilité, la paix et la concorde. Confier ce temps à Dieu, le Père Tout-Puissant, Maître de toute vie, de nous accorder un esprit de vérité qui pourra éclairer tout un chacun. Là où il y a la paix, règne la vérité et la sincérité. Là où il y a la paix, règne la concorde.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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez comme il était toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant bénisse toutes les personnes ici présentes, bénisse notre président et tous ses collaborateurs, au nom du Père et du du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Abbé, représentant désigné par l'archevêque de Dakar. À présent, je voudrais inviter le représentant du pasteur de l'Église protestante pour le même exercice. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Excellences, nous sommes là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu, pour prier, pour partager, pour dialoguer, pour chercher une solution. et notre Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous dit à chaque fois, soyez dans la paix et soyez dans l'amour. Merci pour ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Merci pour le souffle de vie. Merci pour son excellence, le président Macky Sall. Que toi-même, Seigneur, tu as mis ici devant nous. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette occasion grandiose où tu nous permets de dire la voix de l'Église. Seigneur, nous te demandons ce soir de bénir ce lieu et que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous inspirer à parler de la paix, de la vérité dans l'amour, de partager, de donner et de recevoir. Merci encore, Seigneur, pour cette grâce Si le président appelle, c'est toi qui appelles. Et en tant qu'autorité, tu nous as conseillé d'être à l'écoute et de prier pour eux. Que ce moment nous permet de donner la main, nous permet de se réconcilier et de trouver une solution. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Seigneur, aie pitié de nous. Tourne ta face vers nous et donne-nous la paix. Que tout ce qui se passe ici, Seigneur, soit pour l'intérêt de tous les Sénégalais et que nous tous nous puissions nous réconcilier et vivre ensemble. réeroo amul ñàkk waxtaan moo am